seen xarit Sankiri Diop bu daaray fajtal kon tey dañuy ñëw ak seen émission bi ñuy tuddee les jeudi de Sankiri Diop kon ñu ngi gërëm ñëpp comme ni ma koy waxee rek suñu kilifa nga xamante ne toujours moom la ñu njëkk a gërëm mooy sa Ahmada Tidiane Niang bu daara yi daaray fajtal di nuyu Massey Jong ñu ngi koy nuyu bu baax a baax si Massey Jong xaritu gay di nuyu kilifa ya fa nekk yëpp suñu suñu Babacar Mbaye ñu ngi leen di nuyu di nuyu kilifa fa nekk yëpp yëpp kon mbokk yi de dañuy ñëw yéen rek ci yëkkatiku bu kawe ku bëgg suñu borom yëkkati la ba nga xamante ne yow kenn du la kenn kenn dootu la mën a daaneel lii ku ko def wala ñu defal la ko suñu borom dina la yëkkati ba ca kaw a kaw a kaw a kaw incha allahu taala kon lan ngay def da ngay bind baand bismillahi rahmaani rahim da ngay bind li ilaafi qurayshin da ngay bind loo koy bind 489 adadu fata kon lii laay fi Qurayshin moom ngay bind nga bind wa rafanaahu makaanan aliyan 1111 ak téeméer ak fukk ak benn nga bind yaa baduuxu yaa waduudu yaa haadi loo koy bind junni yoon nga bind huwallaahu jaamiu razaq huwallaahu jaamiu razaq loo koy bind 741 nga teg ci nag baatu nodd yi baatu nodd yi mooy lan allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah kon ba mu yegg ba pare nga jëkk ci baatu baatu liqaam yi liqaam mooy bi ñu waaj a julli allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah kon bu dee noddu baat yooyu bu ne dañ koy lim ñaari yoon bu dee liqaam baat bi dañ koy lim bu nekk benn yoon insha allahu taala lii ko def suñu borom dina lay yëkkati di am wegeel wegeel dafa baax wegeel dafa baax ci doomu aadama gis nga ku la la tey jii ak boo am te amuloo wegeel ci doomu ku lay gis am na bët bu mu lay xoolee waaye boo amee wegeel ci àdduna ci doomu aadama yi bu ne nee jàkk rek seen bët sax daanaka duñ ko mën a yëkkati teg sa teg ko ci sa kaw pour mu yëkëti ko tamit normal sa kaw du yomb kon li ko def suñu borom dana jox wegeel dana jox ubbeku manam yow ñu dinañ laaj yow lan nga jëfëndiko parce que wara a faanaahu aliyan ki ko liggéey ni mu ko waxe 1111 di nga yëkëti ko yalla na la yëkëti place bu kawé kawé kawé kawé bu weesu place ba nga nekkoon kon nak mbokk yi mi ngi nonu bu bëgg yëkëti ko mi ngi nonu léegi bu la neexee tam nga def ci na nga def xorom polle dina ci baax boo ko bindee pare def ci xorom polle incha allahu taala dina baax kon nag ku def xorom polle di ko sangoo moom ah yaram boobu moom macha allahu taala ku la gis na la bëgg ku la gis na la sopp dinañ am dinañ am wégel ci yow incha allahu taala kon mbokk yi leer na incha allahu taala ba ñu ñëwaat ak rekk ci wàllu kii dama jàpp ne képp koo xamante ni yow bëgg nga suñu boroom dimbali la dimbali la lool lool lool lool yow kii loo ci def yaa ko moom kii koo ca def rek yow yaa moom loola kenn mënu laa xañ loola bu dee place yaa yaa koy jël bu dee kër gi xëccoo la yaa koy jël bu dee jigéen yooyu yaa koy jël bu dee jëkkër bi nga xëccoo la yaa koy jël lii may wax nii képp ku ko def la ngay xëccoo lu mu mën a doon yaa koy jël koo ca def amul sikk amul sakk kooku dina wéy say waaw damay bañ a tudd sax ay yeneen yi mais lii koo ca def ah dina wéy say waaw de incha allahu taala day bind kursi ba mu jeex muy allahu laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum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 والذين آمنوا أشد حبا لله بين الله ba nga yaatal ko nga bind falammaa ra'aynahu miimu falammaa bi nga yaatal ko moo falammaa ra'aynahu akbarna waqtaan aydiyahunna ba mu yegg nga xam nga ba nga yaatal wa qulna xaasha lillahi lillahi haa bi nga yaatal ko ma haza miim bi nga yaatal ko in haza illa malakun miimu malakun ba nga yaatal ko karimun bi miimu karim bi nga yaatal ko nga bind wa man yattaqillah yaj'al lahu maxrajan miim wa man yattaqil nga yaatal miim ba yattaq allahu mi miimu allahu ba nga yaatal ko yaj'al lahu maxrajan miimu maxrajan ba nga yaatal ko wa yarzuqhu min xaysu miimu miimu min ba nga yaatal ko la yaxtasib wa man yatawakkal wa man yatawakkal miimu wa man yatawakkal ba nga yaatal ko alallahi allahu bi nga yaatal ko huwa xasbuhu inna allaha baatu inna allaha allahu bi nga yaatal ko baala bu abrahu qad ja'ala allahu allahu bi nga yaatal ko di kulli shay'in qadran عسى الله غيات هو أن يجعل بينكم وبينكم الكل وبين الذين عاديتم عاديتم بميم عاديتم الكل منهم ميم منهم بغياتكم مودة ميم مودة الكل والله هاو الله الكل قدير والله بين الله غيات هابا غفور رحيم ميم رحم الكل إن شاء الله ولبسوا في كهفهم mi mu kaafu himba nga yaatal ko salaasata mi atam mi mu mi atam nga yaatal ko qul waaw ñu dem jërë qulillaahu allaahu ba nga yaatal ko alamu mi mu alamu ba nga yaatal ko maa labisu mi mu labisu ba mi mu maa labisu ba nga yaatal miim boobu lu mu lay jox vingt-huit miim di di lettre abajada yi ñëw ci alquran miim yooyu boo ko yaatalee loo ca def loo ca def ku la ko teree jot gisuma ko ci àdduna kenn du la ko teree jot ma ne miim boobu miim yooyu loo ca def lu ñu la ca defal loolu yaa ko moom lu mu mën a doon looy xëccoo lu mu mën a doon xëccool maire xëccool kii calculel turu dëkk bi def ko ci miim yi calculel turu la nga bëgg nga ko ci miim lu mu mën a doon dañuy bañ a lu mu mën a doon yow jëlal miim yooyu nga def ko ca biir loolu ku la koy tere jot gisuma ko ku la koy xañ ba doo ca jot mukk ci àdduna amul kenn mën la koy tere jot incha allahu taala kon mbokk yi ñëw ci wàllu ubbeeku boo xamante ne mooy ay ubbeeku yi nekk ci alquran mooy ay fatxu yi nga xam ne dañoo nekk ci alquran nga xam ne ay yooyu maanaam damaa nekk fii lijjanti lii jotuma ko mënta nekk kayit yi may wut fii awma ko nekk kayit yi may wut bitim réew awma ko mënta nekk licence bi may wut fii awma ko mënta nekk yaa xam benn papier booy wut ci Sénégal ci Afrique ci monde bi fa nga nekk yow nga def ayatu fatxu yi ubbeeku yi nii ma la waxee nga def ko te jotoo lool yow ubbeeku yow yaay gën ma insha allahu taala ko def rek di nga ubbeeku yow ci lépp lépp lépp kii mooy sirru àdduna mooy ayatu ayatu fatx yi nekk ci alquran man ngay bind yaasin wal quran al hakim innaka la min al mursalina ala siratin mustaqimin nga bind alhamdulilahi rabbil alamina arrahmani arrahimi maliki yawmi ddin iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ba fatiha jeex nga bind فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فغيّل ذا بند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أي فتح لا عندي لأن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ذا بند ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ذا بند إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح لابن ولما فتحوا متاعتهم وجدوا بتاعتهم ردت إليهم لابن واستفتحوا وخاب بكل جبار عنيد لابن ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لابن ربي إن قومي كذبوني فافتح بيننا وبينهم فتحا لابن ونجني ومن معي من المؤمنين nga bind maa yaftahi llaahu linnaasi min rahmatin falaa mumsika laha wa maa yumsiku falaa mursalahu min falaa mursalahu min baadi huwa al azizul hakim nga bind izaa jaa izaa jaaha fathun abwaabaha nga bind inna fatahnaa laka fathan mubinan nga bind asaabahum fathan qariban wa maganima kasiran taaxuzuunaha nga bind fatahnaa abwaaba samaai bi maa in munhamirin nga bind nasrun min allaahi fathun qaribun جبنا وفتحت السماء فكانت أبوابا جبنا إذا جاء نصر الله والفتح ay fatxu yaa ngoog ay ubbeeku yaa ngoog ay ñoo ñëw ci alquran yàlla tudd ci ubbeeku lii ëpp na sax di wax la ca nekk ëpp na sax di wax la ca nekk yow da ngaa tëju ñaar téeméeri at nañ la defal lii yow amatoo dara dara dara dara dara nañ la defal lii yow dem nga ba sa dund gi da ngaa bëgg sa yëg xaru parce que yow amatoo dara sa yaakaar tas ay fatxu yi yàlla yalla yalla nga xamne yalla ko tuddu ay bi yalla moko tuddu ay fatxu yi yalla mo tuddu ci mo tuddu ci alquran nañ la ko defal ay bu nañ la ko bindal nañ la ko wara bindale mu mat seuk ñu bind ko limba mu tollol ñu mat mu mat seuk manam yow lo lu la mën a gàllankoor ci aduna lu mu mën doon ay yi nga xamante ne ay fatxu yi moy ubbe ko yi na ci alquran mi ngi non xeyna na ci commentaire benen yoon mais tay inshallah taala ëpp naa ëpp naa ëpp naa ëpp naa commentaire ba tey tey ñu ñëwaat rek ci wàllu wërsëg yi parce que ñëpp ngi naan feebar bi dafa dafa dëgëral dëkk bi poche dara amatu ci lépp ñu ngi koy wax ñëpp a ngi découragé kon looy bind da bind inna haza la rizquna ma lahu min nafadin 1447 bind leen loolu inna haza la rizquna bind ko 1447 soo mënee takkal benn soo mënee bind bind bindaat ko beneen yoon di ko sangoo yow bu dee da nga nekk ci dëkk Sénégal nga nekk wala bitim réew nga ne jël xaalis ba ne ci dëkk ba xaalis ba ci gën a rëy maanaam billet bi billet ba nga xamante ne moo mag ci billet yi def ko ci xaalis bi def ko ci saafara billet bi gën a mag ci billet yi bu doon Sénégal 10 000 francs moo mag bu dee waaw bu dee beneen réew xaalis bu gën a mag def ko ci saafara bi sangoo ko génnaat sangoo ko génnaat xaalis bi ba kon nga kon ne di ko sangoo nag nga xool commentaire sax du ko ci jar insha allahu taala dañu dëkk bi dafa dëgër dafa dëgër dafa metti kenn xamul nooy def kon nag insha allahu taala loolu moom mu ngi noonu kon naa ne dëkk bi dafa dëgër tey ñëw ci bayre boo xamante ne bayre tubaab la bayre boo xamante ne ku ko def nit ku weex sax la ñuy wax nit ku weex na daw sa kaw lii may wax nii ku ko def nit ku wex ñoy dal ñoy daw ci sa kaw mais doo daw ci ñoom am na ma fi joxe won da ngay bind ya xayaanu ya xayaanu ya ya xayaanu ya xayaanu da ngay bind 166 ñet yoon bu ko bind 166 ñet yoon yow sangool bi def ci karotu map takal bi def ci xalima ba nga ko bindee parce que xalima lañ koy bindee te xalima ba nga koy bindee ngay taal ci kaw maanaam bu fekkente ne xalima lañ koy bindee xalima xat wala beneen xalima am na xalima bu ñu koy bindee mais xalima bi daal boo koy bind da ngay taal ci kaw muy tàkk kon defal ci xalima bi tuuti pétrole ci kaw rek muy tàkk muy tàkk ngay bind ngay ngay doog a bind yaa xayaanu yaa xayaanu yaa xayaanu yaa xayaanu yaa xayaanu yaa xayaanu incha allahu taala bu waree ruus ba doon tàkk ci kaw nga jël ko bu ko am na noo koy def ci biir saafara bi aussi am na it noo koy def ci la ngay tàkk ki ko def insha allahu taala defe naa ne tubaab yooyu tubaab mooy daw ci sa kaw waaye yow doo daw ci kaw tubaab mukk ci àdduna xam nga tubaab yenn saay yi leen alxuraanu kese yenn saay sax seeni seeni sobe tax na alxuraanu kese yenn saay yi du leen laal waaye am na xalima boo xam ne moom lañ koy bindee am na bant xalima bu ñu koy bindee bant xalima boobu nag boo ko bind dangay taal ca kaw muy tàkk ngay bind waaw soo ko bindee 166 deux fois insha allahu taala nga jëfandikoo ko kooku moom ku ñu ko defal defe naa ne yow tubaab mooy daw sa kaw waaye yow doo daw ci kaw tubaab mukk mukk mukk mukk mukk ci àdduna kon mi booy bind day tàkk day bind ci kaw di bind muy tàkk ci kaw balaa moo egsi ci yow defe naa ne insha allahu taala defe naa ne dangay ngay bind dina yegg insha allahu taala képp koo xam ne am nga feebar bu méttee metti sonal la lool lool lool lool fu ne nga dem fa mu tee wër lu na nga dugg ca lu na nga dem fa yorul lu na nga def fa yorul lu na nga def ko yorul na bind na nga dem sotti yaasin nga bind fa salaamun qawlan min rabbin rahimin salaamun qawlan min rabbin rahimin salaamun qawlan min rabbin rahimin loo koy bind 1111 ngay bind salaamun qawlan min rabbin rahimin benn yoon nga bindaat ko 1111 muy ñaar yoon nga bindaat ko 1111 mu ñett yoon nga di ko jëfandikoo incha allahu taala feebar bi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg salaamun boobu yàlla wax ci alquran salaamun qawlan min rabbin rahim feebar boobu dina fa jóg ak lu mu mën a doon feebar boobu dina fa jóg incha allahu taala kon nag mbokk yi ñëwaat ak yéen rek seen émission daaray fajtal ñi may laaj mbirum jaaro yi ba tey ñu ngi koy laaj jaaro bi li liñ ci commentaire benn bu ñu ci commenté rek des na fukk wala fukk ak juróom wax nañu mënuñu wax lépp jaaro boobu ñi ko am am nañ ko waxoon naa ko fi ñi ko amul amuñu ko ñi ko am mi ngi ak ñoom ñoom xam nañ ñi ko takk mi ngi ñoom ñoom xam nañ ñi ko takk ci Sénégal ko takk ci France Amérique États-Unis Espagne Suisse ñi ko takk ak ñoom mi ñoom xam nañ daanaka ñoom sax bu kenn duggoon moom mu leeral man ba mu ko takkee ak léegi nan la. waaye ñun wax di yàlla laaj laaj def ciy bari te te laaj na kan ko xeebal borom moo tax dina ñuy waxaat noonu mais duñ ci mën a leeralaat ñu ñëw ci li nga xamante ne koo def suñu borom dimbay la ixlaas xam ne saar bi mooy saar bi amul raa mooy saar bi amul raa nga xamante ne suñu borom lu ne la ciy wax lu la ciy wax muy carte d'identité da nga bëgg suñu borom dimbay la lu dugg nga ca fu ne nga fa da lii moom loo ca def noonu la looy def. qul huwa allahu ahad 972 assamadu lam yalid walam yulad boo géej ci assamadu lam yalid walam yulad nga def ko 972 lam yakun lahu kufuwan ahad 972 ibni alam nashrah ba mu jeex 286 zuyna li naas ba mu jeex 344 isa jaa nasrullahi 312 di aladu baasitu def leen di jaru sama ci commentaire mbokk yi def leen di jaru sama ci commentaire man Sandjiri Diop batay ñu ñëwaat rek ci njariñ boo xamantene dot man it mën naa ko bañ a commentaire ndax dafa am yoo xamantene kenn mënu ko leeral yow da nga yow lu nekk moo ne sa yaram da nga ne nga rab la ne nga jinn la ne nga lu mu doon ne nga dalay sunal boo ci da ngay tiit mënoo liggéey fenn foo dem xam nga loo maanaam loo xamantene amul limite jëlal alhamdulillah 128 sotul quraysin 138 nga def ko juróom-ñaari fan ba pare nga zikkaraat aay bi 138 incha allahu taala Quraysin tamit 138 wala alhamdulilah aaya la Quraysin saar la lii ku ko def moom duma ci commentaire boo paree rek defal ci ndox sangu naan wala ko reenu fuuf di sangu di ci naan incha allahu taala yow moom xaw ma kan la dara di tiitalati xaw ma kan la dara di yàqati mais yow nekk yow am na ndomb yoo xamante ne tamit dañ koy liggéey muy li ñuy wax tabaaraka lazi biyadihil mulk ñu koy wax mulk dimaas muy ndomb yoo xamante ne tabarak yoo xamante ne dimanche lañ koy liggéey même dimanche bi am na heure bi ñu koy liggéey waaw kooku moom tamit mucc mucc mucc mos waaw mucc mos moom itam moom itam nañ ko waxee noonu incha allahu taala kon mbokk yi tey jii seen mbokk seen xarit Sandjiri Diop loolu leen indiloon tey jii daaray fajtal di gërëm ñëpp di ngeen di gërëm sëñ Abdoulaye Ndour bi nga xam ne mooy tax ngeen man cee jot ci li ñuy def di gërëmaat kilifa yi comme niñ ko waxee rek suñu sëriñ suñu kilifa Cheikh Ahmada Tidiane Niang sëñ Souleymane Niang sëñ Babacar Mbaye ak oustaz ya fa nekk yépp ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp ñëpp ñëpp leen jox dig daje alxamis bii di ñëwaat insha allah taala ci waxtu wi والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا إنما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان